maa ngi tudd Baye Déthié Mbengue euh, nekk technicien agricole sortant de lécole école de Cambérène CFPH euh, nekk baykat yor fii benn exploitation familiale fii si Gorom un une exploitation de cinq hectares euh, ki nga bi nga xamante ni dafa composé de différentes spéculations man nañoo wax ne bay nañ fi li nga xamante ne mooy pomme de terre un hectare et demi bay nañ fi supame un hectare béy nañ fi aubergine zéro quinze tomate zéro soixante quinze def nañ fi piment tamit zéro vingt cinq def nañ fi laitue def nañ fi daal ay cultures yu bari euh, pour différencier les cultures quoi. ñun ñu ngi commencé bay fii depuis l'année passée daaw lañ fi commencé bay avec une réseau d'irrigation qui vient de Bertialan moom la ñuy irriguer actuellement avec une système d'irrigation de aspersion Euh, actuellement si activité boobu lañ nekk. ñun euh, yàlla dafa dogal ñu nekk technicien agricole bi ñu génnee école yàlla dogal ñu nekkoon dans les entreprises privées comme la SL qui se trouve à jama def nañ foofu presque deux ans comme contractuel bi ñu fa jógee dem nañ Tamba defa fa deux ans euh, de service si ANCAR léegi bi ñu fa jógee ñu ne pourquoi pas ñu dem liggéeyal suñu bopp. ni ñuy liggéey suñu bopp nag mooy dañoo ñëw fii Gorom fekk euh, les forage de Berthialane ñu commencé waat ko ndax Berthialane mën nañu wax ni forage yi dafa tëjoon depuis 1995 léegi bi mu bi mu commencé waatee tamit ñu gis ni à ah, avantage la pour les jeunes ñu dellusi waat Gorom installé waat fii si sama si suñu tool bi fii nga xamante ni suñu toolu famille la toolu familial la léegi ñu ñëw installé wu fii euh, bi ñu installé woo fii tamit daaw depuis daaw ñuy liggéey si ndoxu Berthialane bi bi ñuy liggéey si ndoxu Bertilaan bi daaw gis nañ amoon na amoon amoon na amélioration bu baax parce que daaw mën nañu wax ne amoon nañu ndox bu baax a baax ndax ndox bi ñu amoon daaw dañ daan tourner plus de vingt vingt asperseurs vingt tourniquets mais cette année ci dañoo gis ne bi ñu comment bi ñu gisee loolu daaw mu nekk euh, njariñ ñu ne ah pourquoi pas déwén ñu yokk suñu production ren loolu moo tax ñu yokk suñu production bi ñu yokkee suñu production tamit ñu gis ne production bi ñu defoon daaw ren war nañ ko mën a doubler def production ba nga xamante ni tey jii mën na satisfaire suñuy besoin ndax daaw sax mën nañ ne satisfaire na suñuy besoin mais tamit ren dañu ko gën a améliorer gën ko yokk léegi nag bi ñu yokkee euh, liñ doon bay daaw ñu gis ne bi ñu démarré ñu gis mu commencé am ay problème problème bi ñu commencé woon a am mooy si ndox bi parce que ku daan tourner vingt tourniquets yow léegi mënoo tourner sax trois aspecceurs loolu xam nga ne mos day yàq day yàq liggéey ñu jël suñu xaalis ñu dem uti xaalis ñëw def ko si suuf si mais bi ñu ko defee si suuf tamit gis nañ ne ah am nañ ay perte yu rëy perte yu ñu am mooy ne ah ndox mi ni mu waroon a mel melu ko te ñëpp xam nañ ne bay moom ndox moo ko yor te bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu commencé ba léegi depuis ñu semi woon depuis ñu semi pomme de terre bi ba léegi mënuñu fexe fexe fexe ba am pression. boobaa léegi nag am nañ lu bari lu ñu yàqule si pomme de terre yi ndax rendement yi nga xamante ne ñu ngi ko doon séntu si pomme de terre bi sax duñ ko am parce que amuñu ndox amu ñu ndox te dañ fi daj lu nekk léeg dañuy obligé sax di fanaan guddi gi pour arroser mais guddi gi buñ fanaanee tamit duñ am ndox bu doy dañuy dañuy obligé di dawal ay ñaari asperseur ñett mais situation bi moo ko obligé il fallait ñu def ko buñ ko defee tamit du tax ñu àggal suñu arrosé ba tax na am na tool yu bari fii sax yi nga xamante ne mu ngi suñu suñu côté dañoo bàyyi seen tool à cause que ni amuñu ndox waaye ñun moom ñu ngi doon taaba taaba di góorgóorlu ba nga xamante ni dinañ mën a am ay quelques asperseurs yi nga xamante ni moom la ñuy tourner mais dañ koy dañ koy def de telle sorte que tout la journée dañuy dañuy continuer si ak ñaari asperseurs yooyu la nuit tamit ñu continuer def noonu ba ñu sauver li nga xamante ni mooy suñu suñu gàncax yi nga xamante ni moom lañ fi bay mais gàncax yi sax mën nañoo wax ne sauver wul à carrément à cent pour cent ndax boo dee xool pomme de terre bi liñ si doon séntu si rendement tey jii duñ ko am parce que ñu ngi fi de un hectare et demi hectare bu nekk rek ñu ngi si doon séntu plus de trente ton à l'hectare mais gëw ma sax ñu am dix-sept tonnes à l'hectare parce que ndox moo amul euh, bi ñu semee ba pare tamit gis nañ ne wax dëgg yàlla période boobu gàncax bi soxla woon na ndox à cent pour cent mais période boobu amuñu ndox am na euh, pomme de terre yi nga xam te ni présermination bi mu waroon am sax amu ko dafa mujjee pourrir si suuf si ay quelque ñoo génne. léegi nag avec quelques yooyu nga xam te ni moo génne moom lañu ñu nañ ko sauver parce que tamit comme on a dépensé beaucoup d' argent fii ñu ne nañ continuer euh, nañ continuer di arroser noonu ba am li nga xamante ni moom lañ bëgg mais bu ñu xoolee ne carrément liñ liñ fi def si xaalis suñ ko doon xayma tey jii euh, romb na 3 millions di wéy si investissement bi nga xamante ni def nañ ko si tool bi ba tax na investissement boobu nag boo ko defee ba pare amoon ndox yaakaar naa dina fausser sa programme pare. teguñu si deux mois euh, ñi nga xamante ne ñoom la ñuy liggéey mooy les forages de Birkelane ñu indil ñu ay factures nga xamante ne ça dépasse euh, ça dépense euh, ay sept cent mille de poussière xam nga ni loolu te consommé wu ñu ndox boobu mu nekk la nga xamante ni daal neexuñu daal parce que ren ni ñu waroon a liggéeyee liggéeyuñu ko parce que daaw la liggéey bi gënoon a dox parce que daaw amoon nañu ndox lance bi nga xamante ne nekkoon daaw moo poussé jeunes yu bari ndax boo dee xool lii dafa nekk euh, programme bu am solo ndax soo xoolee euh, programme bi tax na jeunes yu bari yi nga xamante ni seen xel ñu ngi woon si immigration sax léegi defaruñu ñu ngi rester dans le milieu travailler dans le milieu et réussir dans le milieu ñoom instant yi loolu lañ nekk mais actuellement ñun gis nañ ne loolu mu ngi bëgg a lan moo ko bëgg a yàqu ndax manque ndox mi te ndox moomu yaakaar naa moo yore li nga xamante ni mooy liggéey bi te période bi ñu toll nii tamit soxla nañ ko lool bu ñu amulee ndox rek mënuñu liggéey ba tax na ñu ngi oo les autorités ñu jàppale ñu si li nga xamante ni mooy ndox bi nu ñu ko gën a mën a saafara ba nga xamante ni béykat yi dinañ jotaat ndox mi à temps ndax fi mu toll nii wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañoo jël suñu lépp def ko si tool yi kon boog war nañoo jàppale si li nga xamante ni mooy ndox bi ndax ndox kat moo yore tool bu ñu amulee ndox mënuñu liggéey te dañoo jël ay risques def fina def ay investissement ya nga xamante ni yu rëy si tool yi ndax boo xoolee tool bi ni mu toll cinq hectares benn jeune ñëw exploité ko yor fi deux emplois xam nga loolu effort la kon boog dañoo war a jàppale li ñu war a jàppale yëpp ñu jàppale ñu si ba nga xamante ne dinañ am ndox bu doy ndax bu ñu amee ndox rek yaakaar naa lii des moom mën nañ ko gérer parce que tamit wax dëgg yàlla am nañ expérience bi jaar nañ dans les grandes entreprises jëlee nañ fa expérience ba nga xamante ne bu ñu concentré woo si mbay mi rek mën nañ ci génn mën nañ si am ay revenu yi nga xamante ne lu kawe suñu njort lay doon. damay lancer un appel rek euh, si ñi nga xamante ne ñooy autorités yi nga xamante ne ñoo gérer li nga xamante ne mooy réseau Bér Thielane dama wax ne réseau Bér Thielane eau ba nga xamante ni du eau potable kenn mënu ko naan eau ba nga xamante ni c'est destiné pour les pour les paysans kon boog nañ ñu si dimbali les forages yi nga xamante ni ñoo nekk caaro yi ak yi nga xamante ni ñoo nekk Bér. ñu fexe ba forage yooyu yëpp takk ñu jox ko béykat yi ndax béykat yi bëgg nañ liggéey rawatina jeunesse bi nga xamante ne ñoo fi nekk damay woo sama mbokk yi nga xamante ne ñooy la jeunesse ñi nga xamante ne ñu ngi si zone bi yëpp ñu retourner aux terres parce que tamit actuellement gisuñu lu fi man li nga xamante ne mooy mbay mi gëm naa ne bu ñu jàppalee si ndox moomu xale yëpp dinañ dellu si tool yi ndax li leen di delloo si tool yi mooy dañuy gis ne ah seeni moroom ñu ngi ci tool yi ñu ngi siy gagné ay revenu yi nga xamante ni mu ngi satisfaire seeni besoin ba tax na bu ñu dimbalee ci ndox boobu xale yi dinañ delluwaat ci tool yi ndax tool tamit wax dëgg yàlla jamono jii mooy nekk facteur de développement bi nga xamante ni tey jii mën na jàppale réew mi si benn côté mooy semence bi nga xamante ni ndaw ñi ñu ngi koy def semence bi ah immigration bi nga clandestin bi nga xamante ni xale yi ñu ngi koy def di jaar si géej gi di ñàkk seen bakkeñ te loolu mën na ñàkk jàpp nañ ne nag jamono jiñ toll nii bu ñu jàppalee jeunes yi dinañu liggéey ndax nañ leen jox ndox bu ñu amee ndox rek dinañ liggéey loolu nag ñu ngi si lancé un appel si autorités yi nga xamante ni ñoo yore réseau boobu ñu bàyyi ndox mi ñu indiwaale ñu ndox mi ni ñu ko bëggee ensuite tamit li may jokkoo waxaat tamit mooy li nga xamante ni mooy facture yi ndox bi cher na fu cher na lool lool lool te ndox ba nga xamante ni euh, mënuñu ko naan. lu dul béykat yi ñoo ko soxla yaakaar naa loolu mën nañ si jàppale béykat yi wàññil leen ndox mi ba nga xamante ni ñoom dinañ ci mën a liggéey ak xel mu dal waaye fii da ngay gis ku liggéey ba pare xelam du dal parce que mu ngay séntu facture ba nga xamante ni wax dëgg yàlla bu ñëwee euh, nga culture ba nga def sa culture ba pare euh, récolter ba pare jaay génn say frais boo fayee ndox doo dese dara loolu tamit xam nga ne neexut si jeune ba nga xamante ni dafa ñëw su meeku bàyyi léppam jël léppam def ko ci tool yi kon kooku war nañ ko jàppale si côté boobu loolu tamit ñu ngi si lancer un appel di ñaanaat bu baax di soññaat suñu moroom yi tamit ñoom ñëpp ñu delluwaat ci tool yi xam ne tool yi moo fi nekk di di remercier tamit bu baax ñi nga xamante ne tamit ñoo ngi ñuy jàppale si tool yi ñu ngi leen di remercier bu baax a a baax a baax. ñu ngi remercier waat tamit bu baax fédération des producteurs de la zone des Niayes FPMN di fédération ba nga xamante ni mu jàppale béykat yi bu baax na cette année si ndax ren wax dëgg yàlla gis nañ ni mu jàppalee béykat yi si semence pomme de terre ànd ak def ko benn protocole avec les indiens ndax ren jii dañoo joxe semence euh, euh, béykat yi jox leen engrais jox leen gasoil jox leen fumier rien que rek pour jàppale béykat yi boo ñoralee tamit ñoom ñoo jël produit bi jënd ko kon boo kooku dañ koy saluer parce que ñun ñi ren ñoo ñu jox semence jox ñu engrais jox ñu fumier. loolu nag euh, dañ koy saluer bu baax mu di geste ba nga xamante ni loolu producteur yëpp ñoo ko rafetlu ndax fédération bi mu ngi commencé euh, kam mu ngi couvrir plus de deux cent villages kooku koy dañ koy remercier bu baax ndax fédération fédération bu am njëriñ la si zone bi wax dëgg yàlla mu ngi ñuy jàppale bu baax euh, di remercier bu bu baax tamit li nga xamante ni mooy autorités yi nga xamante ni ñu ngi si ñu ngi si dëkk bi. rawatina autorités yi nga xamante ni ñoo yore ndox mi ñu ngi leen di jaajëfal tamit di leen soññaat ñu gën a veewaat tamit si li nga xamante ne mooy gestion ndox bi ndax gestion bi des na bu ñu nee gestion ndox bi des na tamit mooy comme ni nga xamante ne ni la contour yi waroon a duggee si zone bi dafa des ndax am na ay jeunes yi nga xamante ni bëgg nañu lancer wu si milieu bi mais ba tey ñu ngi daw derrière les compteurs mënuñu fexe ba am compteur pour liggéey yooyu dañoo compteur nañ leen jox compteur yi ñu dem liggéey fu dem si tool yi dem liggéey parce que amuñu fi leneen loolu mooy waral xale yi di dem si géej gi di dee si géej gi te loolu wax dëgg yàlla mën nañ ko saafara niñ koy saafaraa mooy nañu gën a góorgóorlu jox xale yi ñu dem liggéey nuñ leen di joxe ñu dem liggéey mooy brancher leen ay compteur jox leen les moyens qu'il faut ñu dem liggéey loolu tamit ñu ngi koy lancer tamit bu baax di remercier bu baax autorités yi nga xamante ne ñu ngi si dëkk bi tamit di jàppale jeunes yi ah autorités yi nga xamante ne tamit ñu ngi si dëkk bi di jàppale jeunes yi bu baax si li nga xamante ne mooy seen liggéey loolu tamit ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. laa fois passée ñu ngi doon def benn manifestation di marche ndax dañoo gis ne ñun béykat yi dañoo dañoo négliger de trop parce que tamit dañ fi am ay problèmes yi nga xamante ni kenn taxawul wax si parce que gis nañ la fois passée marche bi ñu doon def dañoo jël suñu xaalis def ko si tool yi ba pare mu nar a yàqu ndax gis nañ ñu ren jii. plus de 700 millions nar na yàqu ren ji si zone des Niayes bi fii rawatina dans la zone de Gorom à biir te loolu lenn waralu ko lu dul ñàkkum ndox ndax dañoo gis ne ndox mi moment bi nga xamante ni moom la ñu defee suñuy pomme de terre si suuf si moom la ñu téye ndox mi ay paan yi nga xamante ni mën nañoo wax ne ay 15 millions moo koy réglé par te loolu ba tey jii mënuñu ko réglé yaakaar naa loolu tamit moo li nga xamante ni moo indi jafe-jafe yi nga xamante ni moo waraloon marché keroog bi. ñu ngi lancer un appel nag ñu jàppale ñu ci loolu parce que tamit suñu tool yi yàqu na ba pare loolu kenn mënatu ko dabu yàqu na ba pare xaw ma nag nu ñuy def ba jàppale ñu ba ñu mën a amaat doole ju ñu jógee mais tool yi moom yàqu na ba pare rendement yi nga xamante ne doon nañ ko séntu ci mbay mi ren duñ ko am parce que tamit nañ wax euh, li nga xamante ni moo fi ne ndox moo yore tool te ren ji ndox bi ñu doon séntu amuñu ko daaw dañu joxoon ndox mu doy ñu bari yokk liñ doon bay ñi nga xamante ni daan nañ bay un hectare yokk ba deux hectares trois hectares ren ñu ñëw ba si biir ñu wàññi ndox mi ku doon am vingt asperseurs léegi mënoo am trois asperseurs loolu problème la kon book ñu ngi lancé un appel ñu gën ñu jàppale si loolu wax dëgg yàlla fi mu toll nii sonn nañ lool ndax dañuy xëy di arrosé ba ngoon doo am sax ñaari asperseurs te loolu yaakaar naa mën nañ ko saafara buñ ko saafarawul nag dinañ gis leneen ndax marché bu rëy dina am bu boobaa. maa ngi santaat bu baax di remercier euh, sama jëwrin di la wax ne la lii de am na solo parce que tamit lii bu ñu ko dee def si béykat yi dina am lu bari la mu apporter béykat yi parce que tamit béykat yi dañ leen war di leen seeti ñuy xool seen i jafe-jafe xool tamit position yi ñu toll wax dëgg yàlla lii am na solo lool ñu ngi sant bu baax tamit suñu waajur di sant tamit suñu ndijaay bi nga xam te moom la ñuy liggéeyandool ñu ngi koy sant bu baax di remercier tamit sama gars yi nga xam te ne ñoo nekk ci tool bi ñoom Assane ñoom ñoom Boubacar ñoom Maodo ñu ngi leen di sant bu baax seen liggéey rafet na macha allah tool bi ku fi dugg dina xam ni fii wax dëgg yàlla ñi fi nekk dañuy liggéey waaw ñu ngi sant tamit suñu mbokki béykat yi si ginnaaw yëpp ñoom Pape ñoom mot si maanaam mooy association daara tool tool yi rek ñu ngi leen di sant bu baax di leen wax ni leen tamit ñoom ñëpp jàpp nañ si liggéey bi bu ñu amee liggéey fii ñun ñëpp ñooy àndandoo di ko def bu ñu amee semi ñoo koy defandoo bu ñu amee repiquage ñoo koy defandoo maa ngi saluer ñëpp di remercier tamit bu baax Bambilor Actu ñu ngi lay remercier bu baax tamit sa teewaay wax dëgg yàlla affaire yi rafet na lool macha allah